yaa kitaabal karimi yaa kitaabal ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen balu xaq di leen balaq di ñaan suñu borom mu boole ñu bal di jiital ñaanal saahibul fadila Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaqa suñu boroom yokk aw fanam akuk wéram gën koo kattanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxo mu yóbbu ko fu kaw njort yëpp te ànd koog moom ci barkeb Serigne bi di ñaanalit Serigne Cheikh mu Serigne Abdoul Khadir bi nekk ci bopp njaboot gi ak mboolem njaboot gi yëpp Eh, di ñaanal sëriñ Abdul Xaadir ci boppam suñu borom dolli ay leeram eh, ñu ngi fii ci kër sëñ Basiru mu sëñ Abdul Xaadir ci njàngum alquran mi ca juróom-ñetti waxtu ba léegi mbooloo maa ngi fi xëy na lu takku ci ay daara daje woon nañ fi ñenn ñu nekk ak lim yi ñuy jàng am na daara yu mag yoo xam ne jàng na ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett amit li ëpp ci yi ñëw nag jàng fukki kaamil ak ñaar waaye waxtu wi xam nga ne daanaka naaj na am na ci ñoo xam ne jot nañoo àggal ba wàññeeku ndax bis bi dafa yaatu am na ci ñoo xam ne amoon nañ yeneen càkkutéef yu mel noonu ci yeneen barab moo tax biñ nappee ñoom dañoo sàkku ñu yeewi leen ñu jéggal leen yeewi leen waaye alhamdulilah rabbil alamin defe naa fi ñu toll ñu néew ñoo ci dese lim bu néew a néew waaye ci ñoom ñi toog sax ñi ci ëpp àggal nañu e, moo xam fukk kaamil ñaar wala daara yu mag yi nga xam ne doon nañu def ñaar fukk ak juróom-ñett loolu nag di lu am solo ci bis ndax ab julit lépp lu muy def rawat na lu ñuy defal Serigne Touba e, jiital ci alquran ja day lu am solo moo tax Cheikh Mahamadul Basir waxoon ne bëggoon na bu ñu agsee ci bis bi loolu ñu jàppale ko ci ndax mooy li ko ci gën a ñor. biñ ci waxtaanee ak mbokki sëriñ daara yit ñu bàyyi ko xel ñuy toog ay kilifay daara lañ yoo xam ne seen daara ñi ngi nii jàng nañ ba noppi ñu ñëw toog am na ci ñoo xam ne jàngee nañ ca fañ ne ndax barab bi mënta attanut ñëpp kon noonu lañ fi dajee seegun incha allahu suñu jullee tismbaar ñu def xatmu bi mën a xeewlu te yeewi ko incha allah. xam nañ ko bu yàgg defe naa ca kër Serigne Souhaïbou euh, mu doon fa jàng jàngee fa alquran jàngee fa xam-xam ñu yare ko fa suñ borom mi defal ko tawfiq la wayu juram bëggoon ci moom ba tax mu yóbbu ko foofa eh, suñ borom dimbale ko ca muy njàng ma ak yar ba ndax yooyu ñooy ànd ba mu ca bàyyi ko it ni yoon yu baaxoo ci kilifa sa lépp nga teg ko ci ndigal lool rekk ci lañ ko xam yàlla dimbalee ko it mu am kóolu téefuk mag ñi ñu di ko ci ñaanal tawféexi suñ borom ba loolee ñuy yaakaar ci moom waxtu ne ñu koy gën a gis euh, jàmbaar la it nag ndax ci ay at bari na ñu ko ëppale lool waaye teewul responsabilité bi mu yanu mu ngi ciy góorgóorlu kem kattanam suñ borom di ko ci suturaal euh, bokk na ci li ko suñ borom may tawfiq tamit lu jafe ci yoon wi mooy yoon wi di ndaw toog ci kanamu say kilifa di yëkkati kaddu jafe nañu baree bari te loolu ko ne xam ne ne dina koy def yàlla di ko ci suturaal it muy farale yëkkati kaddu di farale yëkkati kaddu waaye du te waxtu wu nekk la muy wax suñ borom di ko ca suturaal ba mu doon lu ñuy mën a dégg di ko ca musal ci ay rëcc-rëcc loolu it ñi di ko ca gën a ñaanal tawfiq euh, kon lu am solo la itteemit ci liggéeyub sëriñ bi baye boo jël ko ci lii rek daanaka mën naa ne saabu gën jaay yeex mooy bu tabaskee fuñ njëkk a gisee dana ne màggaluk sëñ Abdou Xaadir gi mbaa yaa ngi koy bàyyi xel jàpp naa ne su màggal gii jàllee fu ñu jëkkatee gisee liggéeyu njàngum màggal gi lay wax kon yooyu mu def ci yitte te xam naa ne noonu mu koy séqeek man di ko defee noonu ñeneen ñi ci des parce que comité d'organisation wu màggal gi moom moo ko jiite mu doon lu rëy te yaatu xam naa ne benn kenn ku ci nekk la nga ca jiite dana la ci jox itte ju mat sëkk ànd koog yow comme ni ñu koy defe ni mu koy defee ak ñun ñii loolu yitte ju rëy la yàlla na ci gën a dajeeg tawfeex yi suñ boroom mu nangu cee son nit ndax yaakaar naa ne gën jaay yeex bu ñu àggee ci isroona muharram màggalu daaru xudduus yaakaar naa su ko jiitu wutit lu ca topp dana tàmbali bis bu xëyee dem ca kër sëñ Tuubaa ga ne fa ba waxtu wi ngeen xam rek léeg-léeg mu guddee fa lool suba su xëyee def ko ba màggal jàll ba daanaka euh, jege gàmm bu ñu ci gàmm it. loolu soo fi ñëw di ci ànd ak moom danga ciy xaw a jaaxle sax nu mu koy mane diggante boobu ni mbooloo yi di bare ni ñuy fasantikoo kenn ku ne ak la muy dox te ku nekk dina la jox te bàyyi la xel lijjanteeg yow loolu taxawaay bu rëy rëy la. Euh, ñëpp ameel ko ci njukkal ci noppal gi mu ci noppal kilifa yi te war ko cee ñaanali tawfiq ba ni ko kilifa yi bëggee mu di ko ni mane loolu daal yenn ti la woon yoo xam ne mën nañ koo seede ci moom.